di remercier sama promotionnaire yi di remercier ñi nga xamante ne ñu ngi fii Sénégal ak ñi nga xamante ne tamit ñu ngi au niveau de la diaspora di leen wax ne leen que kontaan nañu trop tey ba mën a boole suñu doole ak suñu ay xalaat ba agsi fii di si remercier waale le personnel administratif du lycée Blaise Diagne particulièrement le proviseur ak bibliothèque bi bi ñuy yombalal liggéey bi ba ñu agsi fii waaw parce que dañu ñëwaatoon def benn euh, pèlerinage bu ndaw di xoolaat ay idée rek yu ñu amoon ci biir groupe bi ne ñu dellu xool lycée bi bi ñu ñëwee état bi ñu fekkee bibliothèque bi dafa ñu choqué ndax de vraiment mu nekk état boo xamante ne dafa jéggi dayoo après si saa si rek nañu xool ne ko kon comme yàlla may nañu tuuti ñu jéem a boole suñu doole ba mën a defaraat ko defaraat ko ba nga xamante ne dinañu permettre xale yi ñu fiy dellu si di jàng di consulter di préparer seen exposé yi ak même personnel et enseignant bi parce que bi ñuy réflexionné ba pare ba gis ni que baax na léegi espace bi rafet na yaatu na dañ leen may ñaari ordinateur ak jëndal leen internet aussi benn boîtier ñu am connexion internet bu un an doon ñaan nag ñu sàmm ka ba pare bëggaale vraiment ñu continuer ñi nga xam ne ñun ñoo leen mag ñu ñu ñu ñëw continuer lii ñu def parce que liggéey bi du jeex yéene yi du jeex na si ñëpp def seen loxo. kàddu yi ñu leen di ñaax mooy euh, c'est vrai que avec euh, la nouvelle technologie lu bari def leen yomb mais ñun ak suñu expérience on s'est on s'est rendu compte gis nañu ne que lecture. li mu lay apporteel kenn mënul wax nu mu toll moo tax ñuy ñaax suñu doom yi ak suñu sët yi ñëw ñu dellusiwaat à la lecture fonk seen euh, œuvre de au programme yi fonk seen roman yi ñu leen di jox pour ñu koy lire boole ko ak internet euh, nouvelle technologie bi ndaxte ñoom am nañu chance boo xam ne ñun amuñu ko woon ñun livre rek nañu amoon ñoom tey am nañu plus ndax informatique bi ñu boole yëpp ndax ñu gën a mën a euh, dooleel seen xam-xam ci àdduna. crise bi nag mu nekk lu ñu metti lool ñun ñëpp muy euh, enseignants yi yi nekk en grève muy élèves yi nga xamante ni jàngeetuñu te xam naa ne tamit gouvernement bi tamit am nañ si lu leen naqari donc ñun dañuy ñaan yàlla def jàmm ñu déggoo jéem a gis benn yoon bu ñu juboowee ba mën a defaraat enseignement bi dimbaliwaat enseignant yi ñu am benn consensus si seen diggante muy suñu autorité gouvernementale yi ak euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, di grève yàlla def ñu juboo ba euh, def lépp mu mu mu baax ñu ñu ñu waxtaan ci kàddu trouver ay solution ba nga xamante ne dina permettre ñëpp delluwaat ku nekk fa nga nekkoon enseignant yi reprendre at cours yi xale yi delluwaat école yi di jàng mën a préparer seen examen année scolaire bi yàlla def si jàmm ba duñ ko perdre ñun suñu yéene ak suñu ñaan loolu la woon.